assaadatu al aizza wa sayidatu al azizat nuraxibu bikum min jadid wa nuxayikum bittaxiyati al islaami al mubaaraka wa nuxayikum bittaxiyati al islaamiyati al mubaaraka wa naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa nuqaddimu fi taxiyati alxalifata alaam liltariqati almuridiya alcheikh mohammadin almuntaqa xafidahu llahu wa raahu wa ayadahu wa nasarah wa yutila baqaahu wa yumattacahu bilsixati walcaafiya xata yuxaqiqa ahdaafahu fi xidmati alislaami wa fi xidmati jaddihi cheikhina cheikh ahmad bamba radiallahu anhu كما نخص بالتحية صاحب هذه المبادرة الطيبة الشيخ عبد الصمد ابن الشيخ شعيب مكي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل بقاءه ويمتعه بالصحة والعافية ويكلل جميع أعماله ومساعيه بالتوفيق والنجاح مشاهدونا الكرام متابعينا عبر قناة الصمدية تي في عدنا بكم من جديد في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة التي من حلقاتكم المجلس المجلس المجلسية المفضلة حلقة نتدارس فيها أسبوعياً هذه الدروس التربوية المستمدة والمستنبطة من كتاب شيخنا شيخ أحمد بامبا رضي الله عنه نهج قضاء الحاج اليوم نواصل معكم وقفنا عند قوله رضي الله عنه في حلقتنا الماضية أكرم به من سادة حداق حازوا الحلاوة من المذاق عليهم رضا به ألاقي محمدا صلى عليه الباقي وآله وصحبه الأطباق إذن بعد قوله رضي الله عنه عليهم رضا به ألاقي من احتوى سيادة الإطلاق محمدا صلى عليه الباقي وآله وصحبه الأطباق mbokk yi ginnaaw bi ñu santee borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonentam bu tedd bi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant bu baax ak a gërëm sunu yaakaar yi tey ak ëllëg Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu noo ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yépp di nuyu mboolem kilifa yi ak soxna yi góor ak jigéen mag ak ndaw waaye nuyo yi ak ziyaare yi dañ ci jiital sunu xalifa xalifatul aam li taifati l muridiya muy alcheikh Mouhamadul Muntaqa di ko ñaanal sunu borom subhaanahu wa guddal fan wi waaye itam yokku ko ak wér ba yéene yi mu am ak naal yi ci liggéeyal ko maamam jadi sunu maam Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu mu defee ko nu kawe njortam ko ak mbokk yëpp waaye itam ànd ko ak taalibe yëpp noonee la ñuy di ziyaara boroom initiative bu am solo bi muy sunu way wayjur Cheikh Abdou Samad Mbakke moom itam di ko ñaanal sunu boroom guddal fan wi waaye itam yokk wér gi ba mbooleem ay jëfam ak liggéeyam yépp sunu boroom defal ko mu am ci tawfiq am ci ak najaax maanaam am ci ak réussite totale yéene ji mu am ngir yaatal lislaam liggéey lislaam waaye itam jaare ko ci xam-xam ñoo ngi ko koy ñaanal suñu borom defal ko tawfiq lu mu am ci lu kawe njortam ginaaw bi ñu nuyee mbooleem lu nuy bàyyi xel ci As-Samadiyya TV dellu siwaat nañ nag ci seen programme bi wala sax ci seen émission bi nga xam ne bokk na ci seen émission majalis préféré yi ngeen di ci ànd ak seen mbokk Mouhamadou Mame Mor Fall Touba nuy jàngalante semaine bu jot madda te mooy matière bi nga xam ne mooy tarbiya wala ñu ne éducation religieuse wala éducation islamique sukkandiku nag ci téereb Cheikh Ahmadou Bamba bii di aljawharu nafis euh, euh, nahju qadaa il haaj afwan sukkandiku ci téereb Cheikh Bamba bii di nahju qadaa il haaj sunu dars buñ mujj yéen ñi nga xam ne yéen a ñuy topp altine bu jot ci waxtu wii noo ngi dooroon noo ngi taxaw la woon ci fi sëriñ bi di wax naan akrim bihim min saadatin xuddaaqi xaazul xalaawata min almadaaqi alayhimu ridan bihi ulaaqi man ixtawaa siyaadata alitlaaqi muhammadan salla alayhi albaaqi wa aalihi wa saxbihi alatbaaqi kon yow mi may teewlu di ma bàyyi xel jamono jii ñuy àddoo man ngaa ubbi sa téere nu fas yéene woy ak yéen comme fi nu taxawlu woon ak yéen tey nag nu war a fi sëriñ bi di wax naan haada wa inni du ijaaba bacd al muridina dawi l inaaba qad talabuu nazman xawaa taaddabu li wa daaka wajaba bayit bi ñuy tàmbalee nag tey mooy sëriñ bi day wax ne nax ju bii di téere bii di nax ju qada el moom de daa jug ngir tont wuyu mu mel ni dañ koo laajoon dañoo sàkk woon ci moom ña sàkk woon ci moom nag mu jug di leen tontu lañ sàkk woon ci moom lenn ci magi murid yi lenn ci taalibe yi am na ñu ne euh, sëriñ Mor Kuna Mbàkke la am na ñu ne sëriñ Balla Faali Jeng la moo ñëwoon ci sëriñ bi sàkk woon ci moom mu taalifal leen téere boo xam ne day wax ci ay teggin day jàngale ay teggin ngir buñ ko jàngee mën a ami teggin waaw loole sax lu war la loole nag mag ñi dañoo baax ak euh, te toroxlu waaye loole bu ñu ko doon sàkku ci sëriñ bi nun ndaw yi tey yii ak ndawi ëllëg maanaam nun noo taxoon nun lañ ko doon defal waaye ñoom moom lépp lu ñu waroon a am ci teggin ci ab yar sëriñ bi defoon na ko ci ñoom ba mat sëkk buñ ñëwee kon di ko sàkku ñun ndaw yi tey ak ndaw yi ëllëg yi nun lañ koy sàkkul ñii nee nañ ki ñëwoon ci sëriñ bi sàkku ci moom loolu sëriñ Mor Kuna Mbàkke la am ñu ne sëriñ Balla Faali Jeng kon maanaam ak wuute daa am ci ñaari nettali yi waaye ala kulli xaalin kenn la ci ñoom ñaari kilifa yooyu sëriñ bi ne xaadaa xaadaa yëgal xaadaa yëgal wa inni naka man du ijaaba boroomuk wuyu laa wuyu nag mooy tont tont wuyu ñan lay wuyu baadal muridina lenn ci taalibe lenn ci taalibe yi baad day firi ñenn waaye itam day firi lenn kon dañ ciy déggee ne nekkut ne taalibe yépp ñoo ñëwoon waaye dafa am ñu ñëwoon wala dafa am ku ñëwoon wuutu leen fa ngir sàkku lii ci sëriñ bi moo tax mu ne baadal muridina lenn ci taalibe yi dawil inaaba ña di boroomu tuub buñ ne inaaba mooy tuub maanaam dellu ci borom bi subhaanahu wa taala at tawbatu ila llahi tawbatan nasuha comme ni ñu ko alquran jàngale yaa ayuha alladina amanu tuubu ila tawbatan nasuha biñ bi mu dikkee nag sàkku ci sëriñ bi ngir mu ngir lan sëriñ bi dane yëgal na tey dama ñëw wuyu tontu lenn ci taalibe ñoo ñooñu nga xam ne boroomu tuub lañ dellu ci seen boroom subhaanahu wa taala tuub nekk lu ama am solo ndax yonent bi salaa sallam moom mooy ngën gi mindeef te xadis nettali nañu ne lu mu néew néew néew bis bu set daana tuub dellu ci boroomam subhaanahu wa lu mat juróom ñaar fukki yoon am ci riwaaye bu wax lu mat téeméeri yoon kon dañ ciy déggee nit ki lu mu sell sell lu mu jàmbaare jàmbaare jàmbaare ci wàll digganteem ak boroomam teewut dellu gi ci boroomam dafay am solo lool sëriñ bi ne ñoom taalibe yooyu xat talabu sàkk woon nañ nazman nazman aw way way woo xam ne xawaa làq na taadduba ak tegginu wala nga ne ay teggin lan moo tax li yataaddabu ngir ñu tegginu ngir ñu tegginu bi maanaa ngir ñu am ay teggin wa daakata wajaba war na sëriñ bi da ñenn ci taalibe yooyu ñii ne sëriñ Moor Kuna Mbàkke la ñii ne sëriñ Balla Faali Jeng dañoo ñëwoon ci sëriñ bi di sàkku ci moom mu taalifal leen téere boo xam ne li muy jàngale mooy ay teggin ngir buñ jàngee téere boobu man caa jaaree ami teggin waxoon naa ko sànq du ñoom ñoo ko tax a jug waaye nun lañ koy fàggul nun ndawi tey ak ndawi ëllëg mu ne loolee sax de lu war la am ay teggin lu war a war a war la lan moo tax sëriñ bi ne lu war a war la mu ne id kullu man bi gayrihi raama tibaa fa innahu yuxramu fawzan wa intifaa mu ne is ngir is is ngir kullu man képp koo xam ne raama sàkku na ittibaa topp sunna képp koo xam ne bëgg ngaa topp sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi gayrihi ci lu dul moom teggin maam te jaari woo ko ci ay teggin mu ne kooku dey fa innahu naka moom yuxramu def na ko xañ fawzan ak texe wantifaa akuk jariñu ne na képp koo xam ne bëgg ngaa topp sunna topp sunna sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te jaaree woo ko ci ay teggin kooku des na ko xañ ak texe waaye itam des na ko xañ ak jariñu topp na mooy lan yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sunu borom subhaanahu wa da koo yónni ci mbooleem mbindee fi ngir mu wooñu wa daaiyan ila llahi bi idnihi wa siraajam munira dañuy woo gémmiñu ci borom bi subhaanahu wa taala nag ñu di ko ci lépp loo xamante ne bii moom ku tedd gi sallallahu alayhi wa sallama daan na ko def ñu koy roy ci loolu ndax alquran moo ñu jàngal wa ma aataakum rasulu fa quduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu borom bi moo ne ñu lu leen yonent bi salaa sallam andil na ngeen ko jël waaye lu leen tere na ngeen ko bàyyi na ko na ko bàyyi na ko daytal bu leen ko def yonent bi salaa sallam nag buñ koy topp ci sunna lañ koy jaaree moo tax sëriñ bi ne képp koo xam ne sàkku ngaa topp sunna mooy topp yonent bi saa salaam te jaaree woo ko ci ay teggin kooku des na ko xañ ak texe maam du texe aussi itam des na ko xañ ak jariñu bi maanaa du jariñu sëriñ bi jàngal nañu ci tazawudu sigaar ci baabun fil ihsaan ne xam-xam sax lu mu bari bari bari bari te àndut ak teggin day sonal boroom rek da koy bijji xëcc ko ñoddi ko jëmee ko ci loraange waaye tam jëmee ko ci rek ab coono fa kasratul bi gayri adabi jaalibatun ila al ada wa taabi te xam-xam bu àndeeg jëfee ki teggin day xëcc nit ki jëme ko ci ragal yàlla te ragal yàlla mooy lépp ndax doomu aadama bi mboolem xeeti xam-xam mboolem fànn yépp bu ko jeexaloon te ragalut borom bi subhaanahu wa taala kooku du borom xam-xam comme ni ñu ko sëriñ bi jàngalee ci masaalikul jinaan inna alladi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afna al funuun kon sëriñ bi ne képp koo xam ne sàkku ngaa topp sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te jaaree woo ko ci ay teggin nee na kooku des na ko xañ ak texe waaye itam des na ko xañ ak jariñu sëriñ bi tekki ne wa huwa fi daarayni xayru kanzi wa xayru matazza bihi du izzi wa huwa moom moom teggin xayru kanzi mooy ngën gi ndàmb ndàmb mooy lan mooy am koom mooy moy mooy trésor mooy lan mooy lépp lu ñuy denc mu nekk lu lu naan lu am lu am xiima lu am dayo lu riche lu am valeur nee na li gën ci ngën gi ndàmbu ngën gi lu ñuy denc mooy teggin loo xam ne du ay milliards yooyu jël di ko rënk ci ay compte bancaire du ay million du ay lenn mbir lu mu riis riis lu ñuy denc téye ko nga di ko làmb làmboo saa su nekk nga xam ne loolee am nga ko mu ci yow te du jógee ci yow la ca gën mooy teggin ndax mooy ngën gi ndàmb mooy ngën gi am koom mooy ngën gi trésor mooy ngën gi lu ñuy denc bi maanaa moom teggin waaye lu ci teg mu ne wa xayru maa te mooy ngën ngi loo xam ne i'tazza tedd na des na ko firee itam i'tazza ndamu na bihi ci moom du izzi boromuk tedd nga nee ne lépp loo xam ne nit ki am na ko ba di ko tiitaroo lépp loo xam ne nit ki am na ko ba di ko tiitaroo mu nekk lu koy góndi mu nekk loo xam ne am na lu ay moroomam amut te lu jara ñeetaane la nee na loolee mooy ak mooy ay teggin teggin rek mooy loo xam ne nit ki war na koo am di ko tiitaroo bi maanaa lépp lu nit ki di ndamoo la ca gën mooy ay teggin waaye du ay alal jooy am du ay kër yooy am du la neen du du du kon daal li gën ci nit ki am mu nekk lu lu am valeur ci moom mu nekk lu riche mu nekk lu cher ba koy ndamoo teggin moo ci gën moo tax mu ne wa huwa fi daarayni xayru kanzi wa xayru matazza bihi du izzi waaye teggin am solo lool loo te solo soosu nag mi ngi rogalaat jëm ci ki nga xam ne moo làmboo teggin yooyu sëriñ bi tudd na ay njariñ yu ama am solo loo xam ne ki am teggin maanaam moo ci bénéficié wu bokk na ci mooy ay teggin day leeral ab xol nit ku bu amee teggin xolam day leer day set wicc laab daa di sell kon dañ ciy déggee ne ñàkk teggin maanaam day lëndamalub xol comme que am gi day leeralub xol kon dañ ciy déggee ne didd bi te safaan bi mooy ñàkk ko day lëndëmalub xol sëriñ bi tekki ne ay teggin boo ko amee dangay jege àjjana maanaam li gën a gaaw a yóbboo nit ki ci àjjana mooy ay teggin wax na wax na sànq ci suñ bind yi weesu ne wa huwa alladi suñu borom mooy def maanaam teggi ñu rafet day nëbbu ak réer ak bonu askan waaye sëriñ bi ne moom teggin day leeral ab xol te itam day tax nit ki jege aljana sëriñ bi ne li annahu ngir naka moom mu munawwirul janaani aji leeral ab xol la wala nga ne al munawwirul janaan mooy aji leeralub xol liannahu ngir naka moom teggin munawwirul janaani aji leeral ab xol la kama yuqarribu kama ni ki muy jegeelee comme ni muy jegeelee ilal jinaani jëme ca aljanna ya nee na teggin daal boo ko amee day tax sab xol leer naññ set wicci laab waaye itam day tax nga jege aljanna ndaxte doomu aadama yi borom bi subhaanahu wa jaamu gi ñu koy jaamu di topp ndigalam di bàyyi tereem loole lépp xam ne moonu bind moonu moom te itam topp gi ñu koy topp de mën naa sabab ci yërmande mu dugal ñu aljanna te loolu mooy ngën gi fay waaw ngën gi fay fay gi gën a bëgg gi nit gi gën a bëgg te mooy texe gi gën a mag mooy dugg aljanna te bokk na ci yoon yi koy gaawal mooy nit ki am ami teggin kon ci lañuy ñu woowee way jur yi ñu nekk ci kër yi ñu nekk ci école yi ñu nekk ci daara yi mbooleem foo xamante ne bii ay doomi jullit dañ fay daje nu gën a góorgóorlu ci yar xale yi fexe ñu gën a góorul luñ am ci teggin rek doyut ndax sëriñ bi moom loolee rek mooy yitteem ba tax na mu taalif téere defal ko defal ko taalibe yépp waaye itam bokk na ci njariñ yi teggin am mbokk yi sëriñ bi dafa wax ne yemut sax ci leeralub xol ak di jegeel àjjana waaye teggin li ci gën a neex mooy day tax say dëkkandoo dañ lay tagg say dëkkandoo dañ lay tagg nit ku ba amee teggin lu muy dégg ah doomi diw jëlee ndeysaan ak yaru moom day ak a baax moom day ak am yitte moom day ak a ak a ami teggin yooyu rek ngay dégg waaye bu dee koo xam ne koñ ba mu dëkk walla quartier ba mu dëkk fu mu mën di doon dafa xaw a nekk ku terrible xaw a am nu mel noo xam ne dañ koy jàmbat fu ñu toll doomi diw ji ni mu nangamee doomi diw ji ni mu defee li maanaam yooyu kenn ku ci nekk war na di ko daw ni koy dawee nag mooy fexe ba yar sa doom ci kër gi ba bu génnee ci mbedd mi mën a appliquer li nga ko maanaam yar bi nga def ci moom kon teggin njariñ yi mooy day tax say dëkkandoo dañ lay tagg waaye itam yëmut ci say dëkkandoo di la tagg de day tax maanaam nga sori sawara nit ki bu amee teggin day sori sawara comme ni muy jegee aljanna bu amee teggin bu maanaam bu amee ay teggin noonu itam lay sore sawara bu amee teggin kon ñaari yëpp nag ñu ciy déggee kon safaan bi a ah, maanaam wal iyaazu billah yàlla ñu ci yàlla musal sëriñ bi ne wa yujibu lmadaxa lada al jiraani kama yubaidu an niraani moom teggin wa yujibu dana waral almadaxa tagg wa wala nga ne aw tagg la day jiiraani fa dëkkandoo ya jiiraan jamcu jaar la day jiiraani fa dëkkandoo ya kama yubacidu niki muy sorilee niki muy sorilee mooy comme ni muy sorilee ani niiraani wali sawara yi gisoo day taxa a jege aljanna yi waaye itam day taxa a sori sawara yi day tax say dëkkandoo di la tagg moom ay teggin day tax itam sab xol leer set wicci laab kon sëriñ bi ginnaaw bi magu taalibe sàkkoo ci moom lii bi muy tontu yii yépp wax na leen ko détails yi yépp sëriñ bi wax na ko léegi nag ñëw taalif téere bi nag téere bi nag bi mu jógee di ko taalif nag sëriñ bi ci ni mu waxee maanaam bi taalibe yi sàkkoo ci moom lii nekkut sax di def li naan dilaatuwaat di yeexal ak niig niigal ak yu mel noonu déedéet nan la def mooy dafa gaaw jug tontu leen bin sàkkoo ci moom lii rek sëriñ mi dafa gaaw jug tontu leen moo tax mu ne ah, fa qumtu musri'an ila al jawaabi wa artaji rida maa thawaabi fa qumtu jug naa musri'an di aji gaaw mbir mu may aji gaaw mooy di aji gaaw rek sëriñ bi ne fa qumtu jug naa musiraan di aji gaaw jug naa di aji gaaw ci lan ilal jawaab bi jëm ci tont tont loolee nag mu ne wa arta ji ta maa ngi yaakaar wala nga ne te danaa yaakaar arrida ngërëm ma tawaa bi ànd akub yool sëriñ bi ne taalibe bi ñu ci moom lii dafa gaaw jug nag jëm ci tontu leen tontu loolu mu leen di tontu te mooy jug taalifal leen téere bu leen di jàngal ay teggin ñu jàng ko ngir nga mën a ami teggin nee na tontu googu mu leen di tontu nag moo ngi ci yaakaar ngërëmul yàlla waaye itam moo ngi ci yaakaar tuyaaba ab yool te noonee it la ko ci amee sëriñ bi nag bi muy tontu fan la sukkandiku ndax dafa jékki-jékki rek jug di tontu. dafa jug da leen tontu waaye bi mu leen di tontu am na ci lu mu sukkandiku comme ni mu ko doon defee ci yeneen i boroomi xam-xam yi lu mel ni jawharu nafis nga xam ne da cee barkeeloo téere bi nga xam ne moom la al cheikhu abdurahman al axdari wayoon moom la wisaroon boog moom mu ñëw way ko yeneen i téere da koy gis ci mbindum sëriñ bi lu ci mel ni masaalikul jinaan da nga ko ciy gis lu ci mel ni mawaahibul qudus da nga ko ciy gis lu ci mel ni tasawudu subaan da nga ko ciy gis téere yu bari yoo xamante ne bii moom ay boroomi xam-xam dañoo ñëwoon wisar sëriñ bi ñëw way ko ngir gën koo jegeel ki koy jàng ngir mu nekk ak may ci moom ngir bu ko bëggee mokkal mu yomb ci moom waaye nax ju itam noonu la def bi muy tontu dafa sukkandiku ci euh, téere boo xamante ne bii euh, Muhammad wala ahmad alxaaji moo ko defaroon moo ko wisaroon euh, dëkkoon ca euh, bokkoon ci sinqiit nekkoon sinqiit moom itam mu ñëw way ko waaye way gi koy way nag da cee boolewaale te itam daal di tënkaale maanaam résumé li ëpp ci li taalifkat yi fi jiitu woon wayoon ci wàllum teggin yépp la jël rek daal di koy ñëw way ko tuddee ko nahju qadaa il xaaj bi dana leer ci kanam moo tax mu ne madmuunuhu nasrul waliyil xaaji wa artaji bihi qada alxaaji madmunuhu lu mu làmboolam lu làmbool moom moom téere bi wala moom way wi nasrul waliyi mooy wisaru kilifa ga alxaaji alxaaji ki ko jug xaaj alxaaj yi alxaaj wa artaji danaa yaakaar mooy ahmad al eh, eh, muhammad ahmad addalxaaj yi wala ahmad alxaaj yi mu ne wa artaji danaa yaakaar bi ci moom qada alxaaji fajug aajo waaye li jamcihi ngir ak booleem ngirug booleem ma ixtisaarin ànd ak tënk tënk wala nga ne gàttañ lu mooy tënk rek jullamaa la ëpp ci la nga xam ne faraqahu teqali woon na ko almusannifuuna taalifkat ya alqudama ña way ña way jiitu nee na téere bi day mi ngi làmboo li nga xamante ne bi ahmad alxaaji wala ahmad addalxaaji moom la wisaroon doon wax ci wàll nga xam ne ci wàllum teggin lay wax ak itam li ëpp ci boroom xam-xam taalifkat yi fi jiitu woon nga xam ne taalifoon nañ ko ci wàllum ay teggin loolee sëriñ bi boole waaye itam daal di koy tënk way ko ngir gën koo jegeel ndaw li nga xam ne walla sax mag mi nga xam ne moo bëgg ay teggin bu ko jàngee mu mën koo jariñ tënk gi nag li tax mu def ko mooy ndax lépp loo xam ne dafa néew boole kook doy moo gën loo xam ne dafay bari lool di la sonal xayrul kalaami ma qalla la dalla la arab yi di wax wax yi bi ci gën mooy wax bi nga xam ne dafa néew ba noppi tegtale maanaam dafa néew ba noppi am njariñ lool loolu mooy wax ji gën ci wax yi sëriñ bi ne wa kullu maa qalla bil iktifaai min alkathiri di la anaai nee na lépp loo xamante ne bii dafa néew wa kullu maa lépp loo xam ne qalla néew na bil iktifaai ak doy xayrun moo gën min alkathiri ci lu bari wala nga ne ci aji bari di la anaai tey boroomu coono sëriñ dafa wax ne lépp loo xam ne dafa néew ba noppi doy moo gën loo xam ne day dafa bari ba noppi di la sonal loolu mënees na ko misaal même leçon bi ngay jël di ko jàng ci misaal boo defoon saa yoo xëyee jël sa téereb xam-xam wala nga jël sa téereb alquran dem ca daara ja walla ca école ba fu mu mën a doon ñu lay jox dar si bind ngay jàng am na nuñ lay solee leçon bi rek bu baree dalay sonal pour nga mën koo mokkal sax wala pour nga mën koo dégg day jafe ci yow bu dee nag loo xam ne dañ la koy jox ndànk-ndànk nëwuñ di la ko solandoo fukki bind wala fukki bind ak juróom waaye par ñaar lañ la koy jox wala par ñett par ñeent wala bu baree ba bari par juróom nga koy def ndànk-ndànk lu ñu la jox rek bu néewee danga koy gaaw a mokkal lool gaaw koo dégg boo dee def chaque jour ngay jël bind rek bu yàggee maanaam danga am lu bari ndaxte doomu aadama bi li fek mi ngi mën a jàng toll ci jàng amul benn ngànt chaque jour rek war naa mën a am bind bu bees wala takun fi kulli yawmin taarika taalluman summa bi ihmal naasika sëriñ bi wax na ko ci biir téere bi danañ ko jàng ci kanam maam bu mu am benn bis boo xam ne rek dangay ngay bàyyi jàng chaque jour na ngay jàng di jël leson boole koog li ngay jàng nag nga di ko jefe kon li tax téere bi sëriñ bi Euh, def ko loo xam ne rëyut lool maanaam ba nekk loo xamante ne bii dalay yuqat loo waaye itam néewut ba nekk loo xamante ne bii daanaka du am njariñ waaye dafa diggu mu nekk loo xam ne da koo maanaam da koo tënk tënk googee nag day tax maanaam nit ki di ci am li nga xam ne moo di cofeel cawarte gi saa su ci nekk rek muy gën di sopp ci di ko gën di jàng moo tax mu ne lépp loo xam ne dafa néew boole kook doy moo gën loo xam ne dafa bari ba noppi du la sonal léegi nag sëriñ bi téere bi da ko way mu nekk téere boo xam ne dafa làq ay njariñ dafa làq ay njariñ ci ngëneelu borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moo dige ci ne maanaam moo dëhale ci ne dina jiñ dina dina dina dina jiñ lor euh, ñañ lay jiñ lor bi maanaa dana défendre ñi nga xam ne ñoo ko gëm inna allaha yudaafiu anil ladina amanu euh, sëriñ bi wax ne nazamtuhu nazman xawal manafia bi fadli man waada an yudafia laallani أحوي به الرضوان والأمن يوم الخوف والغفران Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu mu ne nazamtuhu way naa ko way naa ko way na lan téere bii di Nahju Qadaa il Haaj mu ne way naa ko nazman aw way nazman aw aw way way woo xam ne xawaalaq na almanafia almanafia jamcu yaani manfaa almanafia ay njariñ njariñ laq maa mu ne way na ko way woo xam ne dafa laq ay njariñ dafa làmboog ay njariñ yu baree baree bari moom téere bi bi li man ci ngëneelu ka nga xam ne waada dëhal na dëhal na mooy dige na dige na maanaam promettre na lan la digee an yudafia ci mu jiñ lor ñan lay jiñ lor bi maanaam ñan lay défendre mooy jullit ñi nee na kon téere bi daal daf koo way way woo xam ne dafa làq ay njëriñ ci ngëneelu borom bi subhaanahu wa ci gàttal way woowu mu ko way nag mu ne laallani xay na man xay na man xay na man bi ma amaana man peut ahwi danaa làq bihi ci moom ar ridwaana ngërëm way wii mu ko way nag mu ne xëy na ci sababu loolee dana ci làq ngërëmul borom bi subhaanahu wa taala wala am na ak kóolute kóolute mooy sécurité gu mat sëkk rek waaw nga am sécurité ci lépp rek kóolute yawmal bi bisub ragal ba ëllëg yawmal xiyaam wal xufraana ak njëggal ga ndax bisu ragal ba ëllëg yowmal xiyaam mooy bis bi nga xam ne dafa raglu lool ñépp tiit kenn ku ci nekk sa mbirum bopp rek doy la yowma laa yanfacu maalu wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim du alal du ay doom xol ku ñëw dikk ci suñu borom subhaanahu wa ànd ak xol bu mucc rek ndax wa kulluhum aatihi yowma alqiyaamati farda kenn ku ci nekk rek da nga ko dikkee maanaam suñu borom wéetal yow ba nga jàpp ne yow la bind mu nekk bis boo xam ne bisu bisub ragal la bisub raglu la ndax bu la waxee ne fii yowmin kaana miqdaaruhu xamsiina alfa sana fasbiru sabran jamila waxaal la ne wa inna yowman inda rabbika ka alfi sanatin mimma taudduun bis bopp dañ ko nattale cib kem ni mu toll lu toll juróom fukki junni at muy cinquante mille ans nga war a taxaw di xaar maanaam atteb boo xamante ne bii borom bi subhaanahu wa taala war na la ko atte kon bis la boo xam ne bis bu raglu la bis la boo xam ne kenn ku ci nekk li ngay indi maanaam bu boobaa doo xam fan ngay féete feek suñu borom attewu la ba nga xam fi nga féete maam nit ñi ci njàqare la ñuy nekk sëriñ bi nag na xëy na dinaa làq ci sababu way gii way euh, taal téere bi muy alja euh, nahju qadaa il xaaj dinaa ci làq ngërëmul borom bi subhaanahu wa taala waaye itam ak kóolute bisub ragal ba ak njéggal ga muy ëllëg yowmal xiyaam léegi nag muy joxe ay ndénkaane ay ndénkaane yoo xam ne ay laaya biir la mbooleem way sàkku ñi ay teggin ñépp moo ngi leen ciy dénk waaye itam di leen dénk ci tontu bi mu leen tontu te mooy téere bi mu leen bindal wax leen li ci nekk lépp ci ay ngëneel lekk ay orientation mu ne alaykum yaa ma'shara tullaabi thumma alaykumu bidal jawaabi alaykumu dénk naa leen wala maa ngi leen di dénk yaa ma'ashara tullaabi yéen mbooleem way sàkku ñi mboolem mbooleem way sàkku ñi wala yéen mbooleem way sàkku ay teggin maa ngi leen di dénk summa aleykum topp maa ngi leen di dénk itam wala topp dénk naa leen itam bidal jawaabi ci bi la tont tont bi ma leen di tont denk naa leen ci mu ne yi ma leen ci denk yépp nag mu ne yii muy waaju tudd moo ngi ci mu ne fii nekk na ci moom min al axlaaqi ci ay jikko wal aadaabi ak ay teggin fii nekk na ci moom min al axlaaqi ci ay jikko wal aadaabi ak ay teggin maa loo xam ne sa yaquudukum xalsat na leen wommat gis nga sa yaquudukum xalsat na leen a wommat bi maanaa futur la dana leen wommati naka la leen di wommatee ci sababu bu fekkente ne bii jàng ngeen ko ba noppi jëfe ko moo tax mu ne sax sa yaquudukum xalsat na leen a wammat bi maanaa dana leen wammat ila sawaa bi jëmee ci ak njub fiihi nekk na ci moom minal irshaadi ci ak jubal maanaam ci orientation wal ifaada ak jariñ njariñ maa loo xam ne laa yamallu du yuqat yuqat mooy découragé fiihi ci moom wala minhu ci moom du iraada boromuk nammeel sëriñ bi nee na maa ngi leen di dénk yéen mbooleem woy sàkku ñi ay teggin topp maa ngi leen di dénk ci tontu bii mu ne nekk na nag ci tontu boobu nag ay jikko ak ay teggin yoo xam ne nii ñu leen ko jàngale day bu ngeen ko jàngee te jëfe ko dana leen wommat jëmee leen ci ak njub mu ne ba tey nekk na ci ci ak jubal maanaam orienté nit teg ko ci yoon wi gën ci yoon wi baax yoonu siraatal mustaqim nekk na ci ci ak jubal ak njariñ loo xam ne boroomu maanaam euh, boroomu nammeel du ci yuqat du ci découragé wu mukk nekkul loo xam da nga koy jàng di ci découragé ndax loo koy gën di jàng muy gën di neex ci yow ngay gën a am cofeel di gën a xeeñtu bànneex bi ci nekk di ko gën a bëgg maanaam di ko gën di jàng moo tax nekk na ci ak jubal ak njariñ loo xam ne boroomu namel képp koo xam ne am na iraada maanaam du ci yuqat mukk mu tekki nag ne téere bi di jawharu nafis ki ko jàng ba jeexal ko ki ko jàng ba jeexal ko ak ki nga xam ne da koy door a tàmbali ñoom ñaar ñoo yam ci njariñ li njariñ lee bari waaye itam yiw wi nga xam ne moom la téere bi làmboo làqu ko yiw wi du jeex ba mukk sëriñ bi ne wa yastawi mubtadi'un wa muntahi fi naf'ihi wa xayruhu laa yantahi lu tax id qad xawaa kayfiyat alwusuli li axsani alaxlaaqi walmaamuuli sëriñ bi nee na Euh, wa yastawi dana yamoo dana yamoo mooy danañ am même égalité danañu yamoo dana yamoo mubtadi un aji tàmbali kii door door téere bi dina ju qadaayil xaaj dana yamoo wa muntahi ak aji jeexal aji jeexal mooy aji daytal rek mooy ki ko jeexal danañ yamoo fii nafcihi ci njariñam wa xayruhu te aw yiiwam la laa yantahi du jeex wa xayruhu te aw yiiwam laa yantahi du jeex lu tax id ngir qad xawaa làq na kayfiyatal wusuuli melaw egg ga melaw egg ga maanaam mboolem fi nit ki mën a jaar ba àgg ci borom bi subhaanahu wa jaar ci ay teggin lépp téere bi dala koy jàngal moo tax mu ne id ngir qad xawaa melow egg ga li ahsanil axlaaqi ñeel gën kaa rafeti jikko wal maamuuli ak lu ñuy yaakaar wal maamuuli ak lu ñuy yaakaar kon daal sëriñ bi nee na téere bi ji Nahju Qadaa il Haaj njariñ li ki koy doora tàmbali ak ki ko jeexal yépp ñoo ci yam amut maa ngi koy ma jàng naa ko ba jeexal ko njariñ li nekk ci téere bi maa la ci ëppale déedéet kon ki koy door a tàmbali ak ki ko jeexal ñoo yem ci njariñam yiw wi ci nekk nag bari na lool bari goo xamante ne bii du jeex ba mukk te aw yiw mooy loo xamante ne bii doomu aadama saa su ne rek daf koy soxla saa su ne daf koy soxla rawatina fa nga xamante ne bii fa la jëm muy bis penc muy yowmal qiyaama kon yiw wi ci nekk du jeex ba mukk loo koy gën di jàng loo koy gën di jëfe muy gën a bari rek loolu lépp nag li ko waral mooy parce que dafa làq melaw egg melaw yu mën a jaar ba àgg ci borom bi subhaanahu wa taala lépp daf koo jàngale ci ni nga war a comporté woo ci ay maanaam teggin lépp téere bi bàyyiwu ci dara da koo làq nag ci naka ci gën kaa rafeti jikko ak lépp loo xam ne lu ñuy lu ñuy yaakaar la kon mbokk yi euh, dafa mel ni dañuy daal di taxawalu rek foofu nga xamante ne bii euh, foofu la ñu daaneel muy bayit boobu wa yastawi mubtadi'un wa muntahi fi naf'ihi wa xayruhu la yantahi id qad hawa kayfiyata alwusuli li ahsani al axlaaqi walmaamuuli kon da ngeen teg foofu seen baaraam bu ñu dellu siwaatee ci altine bii di ñëw incha allah ci waxtu wi ñu daal di àndaat ak yéen dikk nag ci jëmmi téere bi tur wi nga xam ne sëriñ bi jox na ko ko waaye itam ak lim ci wax ñaan yim ci def laataa ñuy dugg ci digg laataa ñuy dugg ci dëgg dëgg li nga xam ne moo di téere bi ñuy sant bu baax a baax mbooleem ñi nga xamante ne bi ñoo ngi doon teelu ci As-Samadiyya TV di jéggalaat bu baax saa ni ñu koy defee saasu ne borom xam-xam yi nga xam ne ñoo ñuy teewlu saa su ne ñuy xa ñu xam rek ne seenu dongo boo xam ne moom lañ jàngal mu ñëw di tari li ñu ko jàngaloon rek moo nekk seen kanam te itam doomu aadama matut mbooleem rëcc-rëcc ak ay manquement yu ci am rek ñoo ngi ciy tuub bu baax baax di ci dogal ngànt lu ci leer daal ñu sant borom bi subhaanahu wa taala te xam ne lépp mooma loolu lañ ci jublu lépp lu ci lënt nag ñu xam ne aji wax ji moo gàtt xam-xam te ñàkk fasaaxa lool te am yéenay mu leer إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته